asan lu mun a xew awa ndigal te yaru yow kon dinga làkk bépp yu tey ak ëllëg Frage ah sa doom cere da rafet na waa ba muslu nga ci buñ dellu ci cere ak bay dunde wér gi yaram bi dina ko yëg jibee borom kër gi nag waxi nopp waaye ku xam abbu agoy fam ñu jëmee na ma ko nëbb man mbàkke mbàkke xolama doomu cere laaw la cat bii teet ate cat noppi na ci re mus lu teg ci juróom ñaari sifaay laa ko tooyle joxe ñam dafa diis te bu ñambaar kelee jaamu yàlla yoomu cëri moo tax wattaay mbàkke xeebu ma ci dara xaakasa noonu rekk la ndax loo doon lu nekk ubbi woo ci basmala muslu woo ci yaa seytaane koy ànd loolu nga tey saytu waaye du barke kon maa ngi daw tey jikko mbàkke bi Mbàkke ñu ngi ziar ñu ngi dooloo ziar sang bi yére bi ma fóotloo woon de moo ngi nii waaye damaa xool rek mu sotti ma ragal sax mu furi ah amul solo mag fii si léegi de amul benn mucc waa baa laabal nga ko bañ a kaa xam naa sa ite ci laab waaye yàggu ca nag ay la yéwén dama gaawantu rek jukkante ko amul solo liñ namm ci laabal bay xayu mooy almaaw mu lax te yére ba na tëmb ca ndox ma ba lépp tooy amaana nag yàgg ba du ci dara kon maa ngi yeewee ku Mbàkke soxna yi déewante ci ay mbooloo de bokk ci ay teggin bu fekkee li ngeen di déewoon njariñ la ngeen wax ko ci kaw ñëpp jariñoo bu nekkee nag yéen ñaar dong la soxal ngeen bàyyi ba ngeen wét ngeen doog ko faa wax. maa ngi jéggalu Mbàkke almaamu mu la laa tàqatal woon ci sama xel ni ma doon ko leerlu ñoo ngi jéggalu Mbàkke Mbàkke su ma xamoon ne lii ñuy def bu la nee yàlla xam na ni Mbàkke sax duñ ko sax def ñoo ngi jéggalu nag waaw jéggal naa la soxna yi bul waxee noonu ndax ñii ay xale leen rek te ci jàng leen toll ndax xam-xam minal max bi ilal ax bi laa sa mbokku jullit addiini nasiha waaw soxna aw maam mën nga maa wax lan mooy almaawu mut la waaw waaw sang bi almaawu mut la mooy ndox bu laab ci jëmmam te mun a laabal wala ndox boo xam ne benn ci ñetti melokaan yi soppeekuwul melawa cafka ga mbaa xeet ga moo xam ndox mu bàyyeekoo ci asamaan wala ci suuf mu ballu ko ndox moomu nag lañuy jëfandikoo ci aada ak ci ibaada jërëjëf soxna si sang bi Mbàkke ñu ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar sang bi man de dugg mi ngi ma yónni woon moo ngi nii xoolal ma ba xam rafet na ah soxna si sa lugg mi da rafet na waaw baa jëndoo jën bu ñuul déedéet mbàkke ndax damaa xam ne bëggoo jën bu ñuul moo tax jënduma jën bu ñuul lii la la carotte France bi déedéet mbàkke carotte bii de suñu réew mii la soqee ko dawal taali gaaw ndax tey dangaa naaja ndax suñu maam maam jaara bam ca tollee da daan teel taal teel a yàq te yére bam daan taalee bokkut ak yére bam daan taajee jërëjëf mbàkke soxna si kaay foo doon jëm soxna si maa ngi doon yegg ca wanag wa Mbàkke baa fàttewoo lu ñu waxoon ne booy dugg ci wanag loolu ngay wax déedéet man nga ma kaa fàttewu ñu ñuy dugg ci wanag taamu nañ di wax allahumma inni a'uuzu bika minal xubusi wal xabaayis jërëjëf waaw soxna Ami Njaay mën nga maa wax booy génn ci wanag lan ngay wax booy génn ci wanag taamu nañoo wax ni bu fraa naka alhamdulilah lazi asxaba am ni al azar la faani jërëjëf Sëriñ Fallou lii la mu doon waaw soxna si booy dox doo def mànk ngay telli telli ba gaañ nit ñi jéggalu ñi nga gaañ soxna yi maa ngi jéggalu ñu ngi lay jéggal amul solo soxna su baax de buy dox day xool fi muy jaar tey dox nànk man de yaakaaroon naa ne lépp lu ma leen di jàngal ci daara ji mi ngi seen biir bopp waaye dara nekk ci ay man dinaa rus de. Maymunatun bintul Xadim war na la foo tollu lu neex sëriñ bu mag bi dem am nga ci ngor dara dara Maymunatun bintul Xadim war na dal leen xam ngeen ni man damay wax rek pour ngeen xam waaye man yéene sama xarit maa yéen ba àjjana soxna yi daa mel ni jàkk jaa ngi noddu de waxtu julli de war naa jot root leen sa télé te ku nekk na nga jàpp ba seelo waa sang bi xanaa ku jàppul rek doo mën a julli julli bu wér wàllif njàpp njàpp nag am sell ñu fas ko ci yéene topp yàlla moo jiitu julli mag ñi nag tuddee ko làbbu ndaw tasmiya moo koy ubbi nga ne bismillaahi rahmaani rahim loolu ngëneel la nga yéene yéene nag mooy léppi diine topp gu ne moom lañ ci njëkk a farataal nga ne nawaytu wuduwa loolu farata ginnaaw yéene nga raxas sa loxo ba ci takk daray sunna la xaalil diggante baaraami faratala la nga ñaan allahumma yow sama boroom na xiini nanga ma laabal minal addinaasi si tilim kama kéem yu naq sawbun kon ni nga laabalee ab yadu malaat mu weex taal minal danasi si tilim boo ca jugee nga gala ko ñetti yoon loolu sunna la nga ñaan allahumma yaa sama borom ijhan defal lisaani sama làmmiñ ratban muy tooy mi ci di tudd boo soo jugee nga sarax ndi ko fiiru ñetti yoon loolu sunna la nga ñaan allahumma yow sama borom zaki dafa sell yi nafsi neel sama bakkan wa anta ngeen yow xayru man yaay ngeen di nga xam ne zakaaha dina ko sella boo ca jugee nga sëlmu ñetti yoon farata la nga ñaan allahumma yow sama boroom bayit lii na nga leeral lii wajj yi ñee sama kanam yow ma tabiyat wujuhun bés kanam yu leer ya wata soj wujuhun ak kanam yu lëndëm ya boo ca jugee nga raxas sa loxo ba ci taq dooro yi ba ci conc li nga ñaan allahumma yow sama borom ij'alni defal ma bokk mi man ci ñi nga xam ne yaquuzuuna dinañu jëlee kutubahum seen téere ba aymaanihim seen loxo ndeyjoor boo ca jugee nga raxas sa loxo càmmooñ naka ndeyjoor nga ñaan allahumma yow sama borom laa tuxtii nii yàlla boo ma joxee kitaabi sama téere bi shimaali sama loxo càmmooñ raxas loxo yi farata la boo noppee nga masaa sa bopp dem bi farata la delsi bi sunna la nga ñaan allahuma yow sama borom taxii nii na nga ma laabal minal zunubi ci ay bàkkaar wana ji nii te nga musal ma minal maxaas yi ci ay mooy boo ju jigéen nga masaa sa biir ak biti loo sunna la nga allahuma yow sama borom ma tig nii na ma allahuma yow sama borom atir nii mën na xéewal li samxi ci dëgg bu saf war basar ak gis boo noppee nga masaas nga raxas sa tànku ndaw dooree ci baaraam bu ndaw bi ba bu mag bi ragg ba ci waqal yi nga teg tànk càmmoñ bi dooree ci baaraam bu mag bi ba bu ndaw bi ragg ba ci waqal yi farata ànd ak xal yi suufi baaraam yi ngëneel la nga ñaan allahuma yow sama borom sabit lii xadama saxalal samay ndëgg ko alal siraat siraat yow ma tazilu fiiwal axdamu bés bu mooy am ndégg ci tarxiis jërëjëf soxna yi jàpp li nag lii moo ko tëj jàpp li man na ci taara ñaan gi moo koy tëj ashadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minal tawaabina waj'alni minal mutahharina waj'alni minal ibaadika saalihiin ah Mbàkke nga baal ma de waaye ñeen ci borom xam-xam yi jàpp nañ ne jàpp mu sax takk doo taay ci yéef bi muy dëgg-dëggi gaalaaj kaaraange matale day jafal xol di foo bàkkaar te it di wàccee mais jàpp ci kaw jàpp moom dafay jàppandil ay mbir soxna Ndeye Ndiaye mën nga maa wax suuratul wujuuhi salaat waaw waaw Mbàkke surtout wujub salaat sart yi tax julli war sart yi ñooy daje ci nit ki ñu door a jàpp ne julli war na ko day bokk ci njabootu lislaam day mat mu kallaf day ànd xelam day xaar waxtu tàbbi day denc ci noteel te day mucc ci bépp ngant jërëjëf assalaamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam cey maa ko waaw war naa mën a waat képp kuy waaw ci kaw saf sa bopp bi ba mu yem ñëpp xooli sa dedd ba mu waar ñëpp roy nga la saraan dàq ko émancipation fëkk na la égalité sànq na la te yow sax xanaa mënoo bàyyi roy na bi junne at ak ñeenti téeméer ak lu topp ba lislaam wootee ba tey yaa ngi nelaw yowoo guloon Espagne New York Italie ba Europe réewoo réew nga ne fa naam daraame wàcc sa njaboot gi ñuy sànku lii lu ko gën a ñaaw waaye bisa ngi nii di ñëw dinañ takk say loxo takk say tànk nga bàyyi urus bàyyi xaalis doom la mbokk jooy la loo amul woon jeex na lu jëfu woon wees na waaye nag bisa ngi nii di ñëw dinañ la jagat jagat jëmee la barzaq te naan la ba nga nekkee woon àdduna boo daan jàpp ko jullee ko woor di def li la yàlla wax di bàyyi ay tereem da naan na juróom-ñetti buntu àjjana yaa ngi nii bu la ci neex dugal xanaa mënoo woon a xool ci kii di sunu yaay Xadija jigéen jooju moo joxe woon alalam ci lislaam maa nga xool ci jigéen jooju moo joxe woon ci lislaam maa nga xool ci kii di sunu yaay Sumayya jigéen jooju moo tuuroon deretam ci lislaam jigéen jooju moo suuxaloon deretam ci lislaam jigéen jooju moo nàndaloon deretam ci lislaam soxna Xadijatu seetlu na bi ba mu doy ko mu laaxaat ko ci dëccam tam nangu ko ko insha allah islaamee daan fiha abada islaamee daan nan sànni drapeau islam ci bépp réew ci bépp gox muy naaw di foy foy te képp ku jigéen ci àdduna bi maa ngi leen ñaan nga roy ci maam maam jaara maam mariama buso ndax moom rek moo fi roykaay allahuma ya rabbal alamin kon mbokk yi ñoo déggandoo